فقتني في جملة الأعداد فوق منا عبادك السادات ñoo ngi euh, taxaw ak euh, Serigne Khadim di kenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor wàllu communication bis bi mooy euh, jëwriñ yit di koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàllu communication ci yoonu murid Touba di site bu am am solo ci yoon wi ñu ràññee ko ci bu baax a baax Serigne Khadim ñoo taxaw ak yow fii ci kër Serigne Hamza Jaalibatul Maraaxib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 yi nga xamante ne yéen a ngi topp Tawfekh Production ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax di leen nuyu yow tamit jëwriñ di nuyu seen talaa mi nga xam ne moom nga àndal ngeen def liggéey bu am solo foofu la ñu ubbee di leen ziar te di leen ñaanal ngeen yokk bu baax ci liggéey bi ngeen di liggéeyal Serigne Touba ginnaaw loolu it ñu ngi euh, ca mu nekkoon li ñu waroon a jiital di nuyoo ko ziyaar ak ñaanal sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiiru ak euh, kii nga xamante ne moo taxawal lii di am satu Mbàkke ak mboolem njabootu Seex Xaadim gi ak mboolem taalibe yi ak mboolem julli ñu ngi leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak salaam ak xéwal ak mucc bu ko defee ci ni nga indee laaj bi muy wàllum communication ci bis bi xëy na ñun euh, boo doon xool ñi nga xamante ne ñoo ŋànk yëf yi dëgg-dëgg di ko doxal soo leen rangale woon ñun ñoo féete ca gannaaw am na jëwriñ ñu bari ñu ko yor di ko doxal ci mu am ci pàcc yu baree bari nag ndax lu mel nii ni mu rëyee bokk na ci xew-xew yi nga xamante ne ñoo gën a rëy ci yoonu murit donc su loolu amee dafa laaj ay wàccaay yoo xamante ne jëwriñ yu bari ñoo koy séq kon ñooñu it ñi ngi leen di sargal waaye di topp ci seen ginnaaw su ko defee Touba Vision niñ ko xamee naka jekk su lu mel ni xewee dañuy bëgg fexe ba mbokk taalibe yi nga xamante ne ñu ngi ci bit moo ñi nga xamante ne doxal nañ seen tànk teew si fi ñu yam ci sëkk wala ñooñu sax ëpple ci ndax léeg-léeg ñooñu danañ gis loo xamante ne ku toog ci baas bi du ko gis ndax image yu mel ne drone yi nga xam ne dañ koo jël ci alentour euh, daara ji ak ba ca taliba loolu am na nu muy demee ku xoolul ci écran yi toog benn place sax doo ko gis te loolu bokk na ci li ñu yéene pour nit ñi xam li xew fii dëgg-dëgg su ko defee loolu it dafa mel ne taxawaayu Touba Vision moom taxawaayu Tawfekh Production ak Bichri TV Istikhama euh, Allemagne TV ñoo ñëpp benn taxawaay bi la su ko defee ci bis bi dañoo lëkkaloo doole yëpp. kii am caméra indi kii am régie indi kii am nangam indi nga xam ne njabootu Serigne Touba ñoo fi daje dajale seen doole seen kattan seen lépp ngir bis bi jag su ko defee ñu wasaare signal bi ci àddina bi yëpp mën koo seetaan ci loolu it ñun ci suñu wàllu bopp comme ni ñu miinee ci taxawaayu bépp euh, taxawaay boo xamante ne xew-xewu murit la ak yu lislaam nañ fay demee di fa yóbbu lu def direct ci àddina bi ni ñu ko waxee en plus dañoo amat beneen euh, touche buñ ciy dolli muy ay écran écran yooyu nag ànd nañ ko ak ñi nga xamante ne ay am di jàmm sëriñ bi lañ te di ko ànd ak moom liggéey bi lu mel ne ay Xelkom Baas lu mel ne sëriñ Xaadim sekk ne smart moom indi na fa écran yu bari waa Xelkom Baas indi nañ fa écran ñun tamit ñu indi suñu écran ñu lëkkale ko fexe ba ñi nga xamante ne dañoo sori biir fi nga xamante ne fi la bi nekk ñoom tamit fu ñu toog ñu mën a toog tranquillement dund yëf yi déggee baax a baax sëñ Xaadim nga développé dafa mel ay doole yu bari ñoom ñoo daje waaw euh, dafa mel ne ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu communication te nekk ci yoonu rek ñoom ñëpp wuy si nañ kon yow ban euh, message ngay ñaax ndaw yi nga xam ne dañoo yor seen i site di yëngu ci wàllu communication waaye nag ci yoonu suñ tubaab ñoom ana ban taxawaay la ñuy war di am seen diggante ci jàppalante ndax ñoom dafa mel ne dañoo yor ñaari mbir dañuy liggéey ci wàll wi waaye dañoo mel ne dañoo am weneen sas muy xidma waaw jërëjëf ci laaj bi yaakaar naa laaj bi solo si foo ko takk weesu na ko laaj bi kenn ku ne war nga koy laaj sa boobu saa su ne ci liggéey bi loolu li ma ci njëkk wax mooy pas-pas nit ki war naa am pas-pasu li muy def pas-pas tax ko koy def du doon ngistal du doon lu muy wute daraja du doon lu muy wute alal ndax sëñ Tuubaa daa yor loolu yëpp yor na daraja yor na alal yor na lépp luy àddina soo ko wutee ca muy dëgg leneen lépp dalay fekk si donc kon pas-pas laay ñaax sama bopp di ko ñaax képp koo xamante ne yaa ngi ci presse bi di ci liggéey nga jiital pas pas-pas nag ku ko jiital ci mbir yaakaar naa ne doo def dara lu yàq ca presse ak ni mu fooree li mu mën a mën naa tasum réew mën naa tas sax àddina donc ku ko yor war na koo bàyyi xel ñu ngi wàccee kàddu yi di tuub lépp loo xamante dëng na ci di wa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf sëñ Khadim Touba Vision yaakaar naa ni mu développé ku ko déglu di nga ci am euh, ay points yu bare bari yu am solo yoo ci mën a jëlee ndax moom doonul koo xam ne gan la ci liggéey bi macha allah yaakaar naa ne Touba Vision fi mu toll kenn dootu ko laam-laamee te man wax naa ko nee naa ko ndaje yu bare bare bare ci yoonu murit lu njëkk sax may pare ci mu jàng daana ma fekk darul moxti ak taxawaay am solo yi nga xam ne mu ngi koy taxaw kon sëñ Xaadim Tawfekh Production mu lay nuyu di la sant di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu ngi taxaw ak euh, waa Mafatihul Bichri TV di site bu ràññeeku boo xam ne yaakaar naa kenn du leen laam-laamee ci yoonu murit euh, ci euh, diviser image yu am solo ci yoon wi ñu am kenn ci ñoom nag koo xam ne moom la ñu taxawal nii war koo tàllal suñu micro Euh, jëwrin ana yan kàddu ngay leeral ci bis bi ak taxawaay bi nga xam ne ma fàttewul Bichri moom la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi ziar mbokk nga xam ne ñu ngi teewlu Production yëpp di la ziar sëñ bi di ziar sëriñ mi nga xam ne si mooy jëwrin ji di rafetlu bu baax tamit seen euh, liggéey ndax dëgg yàlla ay jàmbaar ngeen bi ku ne gis na ci ni ngeen ciy taxawee ci événement bi nga xam ne si am ak événement yi jëm ci yoonu islam bi yëpp di leen ci encouragé di leen ci ñaar. nga xam ne moom loo rek la comme ni nga ko waxee rek daanaka taxawaay bi moom ñun ñëpp benn la taxawaay bi ngeen ci am rek lañ ci am mooy lii day mbiru sëñ Touba day mbiru xasida yi day mbir moo xam ne ñun ñëpp ko bokk liñ ciy def mooy fexe ba teew ci ñi nga xam ne si dañoo nekk ko sori te xëy na jote ci barab bi ñu fexe ba lépp lu fiy am bu xëyee ba keroog jant bi di soow wala ba keroog ñuy ñaan ñu fexe ba lépp jàll ci jàll mu rafet mun gis ce matin doon ko def direct ci mboolem plateforme yi Bichri TV muy ci télévision bi muy ci YouTube bi boo doon Facebook bi yëpp daal. boo doon joxee ab euh, message ci ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu communication ci yoonu Mouride ana lan moo leen waroole ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci communication te doxuñu ci lu mel ne ndaje yi Mouride ak yu demee ndax boo xoolee dafa mel ne am na presse bu bees bu juddu boo xam ne. dafa mel ne ci li ñu gën a spécialisé wu mooy jëm ci mboolem li nga xam ne mooy yaatal njàngalem sëriñ bi ñooñu est-ce amul message boo xam ne moom nga leen mën a jox xam ne moom la ñuy dëgër laa yoo ci lu ñu nekk. waaw moom ni nga ko waxee rek daanaka mooy li ñu wax ci njëlbeen rek ndax ñun suñu vocation dafa uteeg vocation ñeneen ñi ndax daanaka boo xoolee Bichri télévision islamique bi ko tuddee au service de Khadim Rassoul yeneen télévision yi ngay dégg tamit muy Tawfekh Production Istikhama TV Xasaay TV. yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na bëgguñoo lim waaye yu bëree bëri loo xam ne ñëpp xam ko ñii ay site internet la ñii ay page Facebook ñii page YouTube donc lii seen mission mooy fexe ba yaatal njàngalul sëñ loolu nag dafa nekk mission bu noble boo xam ne si képp kuy jullit képp kuy murit moo la war mooy li ñu tuddee vulgariser les enseignements de Cheikh Amadou mooy fexe ba li nga xam ne si moom la si sëñ bi bàyyi ñu yaatal ko mooy yaatal islam mooy yaatal yoonu murit teg ko ci rafetal ak sellal kon loolu liñ ci gën a bàyyiloo xel nit ñi mooy sellal bi ndax loolu moo ci li ci gën a am am am solo information yi mu nekk information yi sûr yu wóor yoo xam ne si ñu la ndax koo xam ne si mbooloo lañ lay déglu vidéo bi nga xam ne si da nga ko dugal YouTube rek laa YouTube kese mën am ay nangam ci ay millions ci ay vues ñu xëy na war nga leen a jox lu wóor loo xam ne si ndax boo leen joxee lu safaanu rek jàppal ne lor nga ñu bëri wala yàq nga confiance ñu bëri ba ñoom ñu amee ci beneen jàngat ak donc information nga xam ne dañ koy joxe muy mbooleem ñuy liggéey ci wàllu boobu moo xam ñu ne ci diine gi la moo xam ñu ci nekkul xëy na liñ ciy gën a soññe wala ciy gën a bàyyi xel moo xam ne ñoom ay ndaw ndawu nit ñi lañ donc ay envoyé spéciaux lañ wala lu ngeen mën a tuddee wala ay ambassadeur donc dañu ñuy jëli di ko joxe loolu moom dafa war a dëppoog saa su ne mooy li nga xam ne si mooy li am ñu koy traité ci amee bu am bu jaar yoon bañ koo def ni ñu koy defee léegi-léegi nga xam ne xëy na yow koom gi rek nga jiital mooy di nga fexe ba tiitre ko noo xam ne si ku ko gis ne ëw lii faaw seetaan ko wala nga fexe ba def ci photo boo xam ne si daanaka la foto bi di wane ak la wax ja di di di di wane daanaka lu ute la lu safaano la te loolu li koy gis mu bëri lool lool te it mel ne ne ci ñeneen ñi la nekkoon waaye daa mel ne commencé naa wàllu si ñëw si ñun kon ñu ngi ci soñ suñu bopp di ci soñ ñu ko séqal ñu gën koo bàyyi xel xam ne ñun li ñuy def moom lislaam lañ ci jiital ndax kenn ci ñun du teg loo xam ne si dafa génn islam